tendance euh, parce que dañoo wax korité parce que korité moom xam nga yi bu ñu si jógee moom dañuy def ay tendance yi day bari parce que mode yi dafa am ñaari modd dafa am euh, cristal cap bu gudd mooy comme genre bi day ànd ak euh, sac ak pochette parce que loolu pour pour après korité fii xew yi day bëri quoi tabaski la ñuy nekk ay jëm ay affaire seel yeeg yooyu moo tax ñu def cap bu gudd bi cap bi ne dañu ko def cap cristal diamant ñu def ko dugal ko cristal ci biir mu dugal doore bii ñu def ko mu fleuré ko nii quoi parce que tissu yi léegi ay brodé moo wàcc brodé autorisé yi wàcc day am day dugal dentelle boo xam ne dugal doore dugal argenté moo tax ñu def ko nii quoi modèle boobu la mais en même en même temps amaan yeneen modèle yoo xam ne euh, capp fërkoo lañ koy tuddee mooy capp bu gàtt boo xam ne moom maanaam pour grand dame yi ak maire yi nga xam te yenn saa yi xam sama aja yi nga xam ne bu ñu jigee ay màkkaak yooyu dañuy bëgg yu baax yi di def ci sañse yeeg yooyu xam nga dañuy day baax si ñoom ajaratu yi. muy jaay ensemble yi doy na waar man may jaay ensemble yi man maa ngi tudd gën Mbuub dëkk gaar bu ndaw quartier bëgg Bamba nag nekk fi bis bu ma saa yu na rek maa ngi daan sama doole ensemble nag neex na ndax léeg-léeg dinañ jaay léeg-léeg duñu jaay waaye fi mu ne nag marché dox na lool ndax ñoo ngi jaay bu baax ñoo ngi yàlla. waa mi ngi dox bu baax sax nag ñoo ngi koy jaay mi ngi jox bu baax ñu ngi jaay njaay mi neex na ñu sant sëñ Fallou loolu ca lan ko sante woon. Euh, euh, xéwal gi de yombal nañ ko ndax dëkkub sëñ Fall des fa jaay lu seer ensemble bi ñoo koy jaay 3000 rek ci yomb xam nga bi ensemble dina benn dara dàqu bii fii ñu koy jaay 1500. Touba moom ku ne dara neex fa Touba mooy dëkku sëñ Fall fii mooy daw daru ko daw dangay ngay daw daru fii neex lool nag. ensemble boobu indi 2000 loo bëgg a fay gàtt na waaw. kin ma wax man ngaa fay 1500 ñett ak juróom ñett ak juróom fukk lay jar gis nga waaw da waaw maanaam ci événement bi nii dafa am ay rouge yu bees wala ay crayon yoo xam ne génn na bees. waaw am na ay rosa yu bees ndax am na ay roosa bi ay rosa milani. milani waaw ah, ak ay rosa imam. Mhm. waaw ah, ak uh, ay kii ay rosa golos bi daal. waaw ak ak crayon bourgeois bi ak ay far faa ah, ak ay poudre ADS nii. mooy comme saaru bi ah, ak ay darmakiis waaw ak poudre mag. ak euh, lipoleef euh, kii bi aloe vera bi bu baax la waaw lipoleef bu am solo daal waaw xam nga tey jii affaire bi daal gis nga tey chaque jour nag ak bagage yu bees mais nag jigéen ñoom day jënd ñoo yor marché bi marché bi li muy xat xat xat lépp jigéen ñi la mais nag bu ku jaay njaayam jigéen rek doo si génn sax. waaw ñoo ngi dox normalement moom marché moom dox na moom waaw kenn doon doxut si kanam fan yi si ginnaaw moom xawoon naa dëgër mais instant yi moom neex na moom. waaw ñëw nañ ñu gis na nga yor li nga xam ne mooy mbaar bu def ay ginaar waaw gis nañ ñu ngi waajal li nga xam ne mooy korité bi ndax clients yi ñu ngi ñëw. waaye saa yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw ndax loolu boo xam ne ñëw ndànk-ndànk waaw. léegi yow yow yan nga fi am. ginaar am na poule de am na seer am na waaw poule de seer am na poule de am na waaw mu gaaw tuuti. waaw léegi ba xam ndax prix yi abordable na wala déet. waaw si bu nekk prix am lu waaye am na daa am da nga am ganaar 3000 2500 2750 am na waaw ba 3000 bu gën a amoon seer 2000 waaw. Diar Abdou Niang Boucher. waaw ñuy waajal korité Euh, euh, ñu euh, waaw dañ ko jënd parce que yàpp moo gën ginaar xam nga ginaar dafa bari feebar baaxul kenn du ko lekk te yàpp yàpp moo gën a saf. <laughs> yow est-ce que sa bopp nga a damaa xam ne yàpp moo gën a saf rek. na na nag bu nag bu ñu yeew koy xam ne bokkul bokkul ak ak ginaar ginaar goo xam ne dañ ko jox ay lu kenn xamul muy lekk ak yooyu c'est nit ñi dañoo xamul ne yàpp moo gën ginaar ko te yàpp muy gën a jar ginaar gi fa ginaar yi day jar baax baax day jar baax a baax. waaw 2500 rek 2500 rek waaw 2500 donc même bu dul événement 2500 lay jar ak lu mu cher cher 2500 lay jar waaw loolu dafa duñ ko yokk. ajal na may soxla waaye ñun kon saaru bagage yi la ñu am ay saaru simis yi dara de koor ak ay jean yoo xayati bi ne silim sa am na am na jean yoo xayati bi ne tamit jean marocain la quoi moom war na saaru qualité bi moom it génn. saaru jiin bi tamit moom it saaru jiinu marocain la waaw moom it xale yu góor yi bëggoon ko trop ah. bu dee comme saaru semis tamit moom it xale yi bëgg nañ ko trop daal moom it ah mooy wax dëgg yàlla ñoo ngi koy gis suñu bopp daal ah sant yàlla bu baax. am na saaru maraakis waaw saaru maraakis yi koy jaay yi ñun ngaay koy commandé mais am tamit ah. Let me not say